waa ziar waaw bëggee naa la Ami Ñang Baalo sama xarit bi. Elaj sagal sànq ba léegi la bëgg a jël nga ni doog a wax Elaj yow ku lay du ma wax. waaw chaîne bi moom sa chaîne la ba ñuy defee émission man ak yow yàggul di wax nga ziar déwénit ci mbokk internet yi ñuy seetaan. waaw waa déwénit yi maa ngi baalu ak ñëpp mbokk internet yëpp di la baalu ak di baalu ñaan yàlla koorub jàmm na ñëpp yàlla na ñëpp am jàmm. yàlla may ñu kooru jàmm ñun ñëpp waaw parce que weer wi moom weeru promotion la mu jaamu ci yàlla bu baax ah tey nag lu ñu indi fii mooy Diaw Kitew suma frère la suma xarit la suma lépp la. ah foofu laay ñëw dax euh, en tant que doomu Medina Diaw woote ne Medina social nga wuy si ko mu nekk sa frère nekk sa xarit ba pare ngeen dëkk Medina aussi waaw Médina social boo ko waxee rek ñun génnuñu ci ñu ngi ci biir parce que ñun Médina rek la am kon lu waay di woo te biir Médina rek da ñu ci seen te jaww sunu frère la bu defee lii rek ah, def na lu rafet ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla kàttanan ba mu yegg yeggale kook jàmm te incha allah ñun tamit du ci wéet ndax dinañ ko gunge waaw boo xoolee boo xoolee sëñax ma jóge na fi Birane Ndour tamit kàddu yi ñoom amatuñu luñ fiy teg. dañuy baaluwaat ak ñëpp rek parce que jaww sunu frère la sunu lépp la waaw. sama sa la El koor gi jàpp na. waaw sant yàlla Amina. waaw El Hadj ban euh, mbégte nga am ban contactement ba nga ñëwee léegi gis sëñ bi mu toog muy sunu sëriñ am ah, Mbàkke nay dund na wér na yokku mu ñëw wuy si jaww. waaw sëñ ma borom baax la sëñ Axma suma sëriñ la man ndax man ba may jébbalu sëñ ma laa jébbalu ñu bari xamuñu loolu waaw muy sama lépp di sama xarit di sama sëriñ. ah ma koy ñaanal yàlla guddal fanam si ñax ma ibnu Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni parce que parce que ah, aussi tamit ah yow si social ngay dox parce que gis nañu nga am ESK famille chaque année weeru koor gi yow tamit da ngay daan def comme jaw di dem si koñ yëpp di joxe ay ndogu ren am na wala amul. am na kañ am na kañ dañuy bàyyi ba deux deux derniers vendredis rek incha allah ñu def ko. comme noonu lañ ko daan def dañ daan def chaque chaque vendredi dañ ko daan def mais bii dañuy bàyyi ba mu deux dernier vendredi ñu def ko yu mag incha allah waaw loolu moom duñ ci jog moom. Hmm? ba tey daal moo ngi marché yéen a ngi joxe ay ndox. waaw bien sûr chaque jour chaque jour dañ koy def waaye niñ koy defee ci anam parce que dañ daan def chaque gox ñu dem fa Fass Gueule Tapée mais bi yoon dañ bëgg def ñaar yu mag ñaar yu mag incha allah der deux dernier vendredi incha allah. village balaa ma lay bàyyi ban conseil ngay jox jeunes yi ndax léegi gis naa ni jeunes yi dañu ambitieux dañuy def social ñii di nu nekk rek am na fooy féete pour mun a def pour réew mi jëm kanam rawatina nag mu nekk euh, waa Médina tey ñoom ñoo xewle ban conseil nga leen di jox. waaw suñu borom euh, bu la joxee as tuut da nga koy bokk ak jaamu yàlla yi parce que am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. Euh, ñun ay porteur de voix lañ suñu borom def na am na nu ñuy wër sëgalee ñu bokk kook jaam yi loolu dafa baax jeunes yi nag léegi dañoo ambitieux parce que gars yi kenn toogatul foofu la réew mi toll parce que àdduna moom ah boo toogee rek naan dafa metti dafa metti day gën a metti moo tax boo jugee dox ay jéego rek suñu borom mën na la jàppale waaw. balaa may tëj aussi bu nga ñu wax tuuti sa relation ak Birane nduur ndax léegi rek ba muy remercier gërëm na la aussi. waaw Birane suma DG la mooy sama directeur moom sama DG la sama lépp la daf may jàppale surtout tous les plans Birane Ndour aw ma fayam Birane Ndour sama lépp la maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm tawféex ak taysir. ñoo ngi lay remercier El kontaan naa. <laughs> merci.